ñoo xamante ne ñoom ñooy ñan ñoom ñooy waa ansaarul diin ñoo xamante ne normalement seen gàmm xambook lañ koy faral defee mais ren dañ ko indi tuxul ko indi ko xanu fa pour mën a boole seen membre yi yëpp ñu mën a gis seen bopp ci seen euh, gàmmo mbaa ci seen daayira léegi tey boo ñu xoolee kan ci àndal mooy comme chaque année muy alaaji Baaba Lamin fii ci xanu fa mu fas yéene sabal yàlla fasiyene yéene yalla fasiyene sante yéene sant muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ma moo ñu tax a jóg ilaha illallah mo len taxajuk a donc duñ def len fu mu nekk nii ñu ci suba ci fasiyene ñew wan len lan mo fi am lan mo fi nek comme chaque fois ñu mo len koy waxe ñun les jumelles de la diaspora ñun yo len fi nekkal nek seni nopp nek seni tank tànk fu yëngu-yëngu am ñu teewal fa yéen mi nga xamne yene nek fi ci Allemagne ak li ko wër àdduna ko wërgal képp les jumelles de la diaspora ñoo leen fi nekkal incha allah nañ leen ànd ak yéen tey fu mu nekk ci suba si wal leen organisation bi wal leen ñi ñi tey fu ñuy añee ak lan moo leen tax a jóg nañ fas yéene am ay interview ci suba si ba guddi incha allah ñu fas yéene màggal comme à chaque fois ñu koy defee kon duñ leen wax dara nañ leen fi amaanillah ba ci kanam incha allah avec les jumelles de la diaspora